hey su ngeen déggee loolu xam leen ni nuyoo la ci biir suédois maanaam ñi ngi fii ci Stockholm maanaam muy capital suédois xew-xew bu mag nag moo fiy am daf fiy am chaque année muy lan le grand festival de salam kañ lay am le 30 octobre 2015 fii ci biir Stockholm ñan ñoo ko organisé tungu na di teew ñuy nataal ki nekk ci boppu mbir mi mu ngi nii toog salaamaaleykum. maaleykum soxna si yow yaay kan. Mamfoun. Mhm. Mamfoun yéenay organiser festival Salam. waaw est-ce que tey mën nga ñu xamal festival Salam mooy lan. Euh, festival Salam moom Salam ñoo ko dee organiser ñoom culture organisation lañ te dañ dee def concerts Afrique Sweden international daal te yàgg nañoo def loolu te indi nañu woon Youssou Salif Keita liggéey na Oumou Sangara. te loolu dafa important pour nit ñi ñi fi nekk ci su yeneen tamit mën a am suñ seen culture ak seen aada is pour enjoy seen bopp rek maanaam tey suñu déggee li nga wax maanaam festival salaam benn festival la boo xamante ni bu jëm ci cadre culturel maanaam pour yéen ngeen enjoy seen bopp fii ci biir Sweden ngeen def ko benn festival international mm-hmm. ay artistes yu mag ay ndaanaan di ci daje mm-hmm. indi ngeen ko mel ni Youssou Ndour mm-hmm. def na festival salaam Salif Keita kenn dootu ko waxtaanee ci aduna bi ñëw na ci festival Salam Oumou Sangaré la malienne ñëw na ci festival Salam ren nak ngeen jël Pape Diouf et la génération consciente xalé bi xew ci jamono gaay tuddé ko le Messi de la musique sénégalaise manam ni Messi di def ci bal bi mm. Barcelone Pape Diouf non lay def ci micro bi suy way mm. lutax ngeen tan Pape Diouf parce que Pape Diouf bi tamit liggéeyoon lañ woon ak moom six years ago te artiste ko xam ne fans fansam yi Eh, xam nga mu ngi liggéey hand organisation handicap moom artiste nit ñi la daal te dañ gis ne since bi ko amee woon mu ngi dana kenn a dem ci kaw ak kaw ak kaw te ñun suñ loolu mooy suñ liggéey daal pour présent artistes yi nekk Afrique kuy gën a dem ci kaw ak kaw te Pape Diouf foofu la am léegi so ñun dañ kontaan rek pour mën a ko indiwaat Eh, nit ñi gis ko ba pare introduce ko tamit ci xam nga yeneen tubaab bi ak yooyu yeneen culture yi gis ne lan Pape Diouf fan la musique am naka la mel. yéen a ko déggandoo indi woon nañ fi Pape Diouf ça fait 6 ans ci ginnaaw dellusiwaat nañu indiwaat tey Pape Diouf ci festival Salam le 30 octobre Layam, am ci Stockholm muy muy un événement multidimensionnel un événement international le leader de la génération consciente Pape Diouf tey ci festival Salam muy le 30 octobre ànd ceeg seen compagnie mm-hmm. compagnie bi nu mu Salam. Salam. salam. compagnie Salam, ñan ñoo ci nekk ñan ñoo ciy liggéey. Eh, ñun bariwul daal waaye liñ de def suñu liggéey dafa soo ko gisee dafa because ci nga am office wi Sweden ba pare ñu nga am office eh, Ethiopia tamit. Éthiopie waaw Éthiopie. si ñun dis dis nit ñoo si nekka waaye liggéey dafa xalaat dafa saf nag waaye li ñoo def eh, ak ba pare li ñoo try eh, yàlla rek moo ko xam ñu ngi ñu ngi try daal te waaw. est-ce que mën nañu xam tey communication bi promotion bi fu mu toll est-ce que nit ñi ñu ngi koy préparer ñu ngi koy waxtaanee. xool bi fi ko defee daal dina baax bi pare Gambian Citizen Culture Week bi tamit inform nañ ko pare xam naa ne waa Stockholm yi ñoom ñu ngi ko pareel bu invite gars yi Sénégambiens yi nekk Oslo Gothenburg Malmö eh, Angleterre Oslo su ne mën a ñëw rek ñëw ngeen ngeen fekk si ñu because xam naa ne moom Pape Diouf dina fi toj. ñoo ko déggandoo Pape Diouf dina compagnie bi Salam la ñoo organisé festival salam muy festival international le 30 octobre lay am fi ci bir Stockholm avec ceeg Pape Diouf ak yeneen artistes yeneen ndaanaan ñu nañ ko fekke manam ay international gis ngeen affiche baa ngi pap Pape Diouf a ngi DJ Mike Yann Gangstar Diamond qui moy DJ Biggie gis nga Cole Riel mi ngi ci DJ masay mi ngi ci DJ Choco Canel mi ngi ci Lordak muy le 30 ak le 31 octobre fi ci bir Stockholm tay nak Mam fam dafa am foo xamante ni dama bëgg ñu dugg fa. Mm. maanaam mooy lan mm. dañuy gis ni souvent artistes yi dañuy raar suwet lu tax. because sama Sénégal mi si tamit lay Gambie si dañ fi bari te euh, yi ñi nekkee tamit dañ yàgg di dem Gambia di yàgg di dem Sénégal so connection boobu mu ngi fa te loolu moo def foog na ñu gën a xam xam ne suñu artistes yi bari yu suñu liggéeyoon naan ak artistes mel ni comme Nandy Cherry ci loolu laa gën a rey nit ñi xam ko fii ba pare Europe tamit rey na fa so tur yooyu Sénégal xam nañ ne bala nit ñu bari xam nañ ne bala because fii tamit ci dëkk bi feetakat yi ñu fii su ne su nekkee ne tubaab nga Gambien Sénégal yi ñoom ñëpp ñu ngi fii te loolu tamit dafa gën a xam ne lu wane suñu aada bi tamit ci biti pour ñun ñu gën a xam lan mooy bala au Sénégalais au Gambien music ñoo ko déggandoo. Mm-hmm. c'est le 30 octobre, le grand festival de Salam, Pape Diouf et la génération concernée. Pape Diouf, Yankissa qui référence Pape Diouf Yankissa ngi idole muy kan Youssou sénégalais bu a festival Salam tay pour Sénégal le 30 octobre waa Suède ñu ngi Norvège ngi Danemark Finlande événement multidimensionnel pour la première fois dans l'histoire Pape Diouf et la génération consciente ci festival Salam le 30 octobre bu ko raté mais Gambien yi ngay waxal donc wax ak anglais. sama people. You know, we're all getting ready for the 30th of October. It's going down, and Papu's going to be here. And I hope that you all will come and represent. And I'm inviting all the people in Oslo, Denmark, Finland, all the Senegambians in these areas to just come and do this with us. And I look forward seeing you all, and I imagine it's going to be a great festival. So see you there, 30th of October at Nana.